wéy ci laaj yi nga xam ne moo bàyyi ko ci tuut tànk yooyu ca France euh, seen laaju fukk juróom benneel mooy lan moo tax murid yi nañoo déggante ak yeneen yeneen kuréel yi lu tax duñ déggante ñoom mën nañoo ak keneen daal waaw murid yi di man dama jàpp ne euh, danañ jëflante ñépp loolu laa jàpp léegi nag li ma doon moytuloo ci yenn tontu rek mooy benn murit boo xam ne moom dafa am jafe boppam nga xam ne moom murit yi ci boobu mën mën a ak ñoom waxuma laa ku dul murit kooku xam nga mbiram kenn waru koo jël rek atte ci mboole murit yëpp kooko defee njuumte nga def moo tax murit yi ñoom jàpp naa ne boo xoolee seen taarix ci jamonoy sëñ ba ba léegi seenum jëflante bu rafet la ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ seqal diine ji ba ci xam ne sax duñ ay jullit jëflante bu rafet la ñuy jëflante ñëpp ndax jëmmi sëñ bu mag bi ci boppam moom dafa bokkoon ci ab liggéeyam xeex mbooleem luy teqale jullit yi moom yitteem moo doon boole jullit ñi loolu itam àgg na ci wax ne képp koo xam ne gis ngeen gémmiñam di génne laa ilaha illallah bu leen ko noonu xam bu leen ko noonu bokkut ak maanaam jëflante bi moom moom waxu ko moom da ngeen war a jëflante ak ñëpp même kooku bu leen defee lu lu leen sax bu leen ko noonu yen maanaam ki nga xam ne ab jullit la def lu la naqari itam lu lu la naqari naqari fexeel ba yow bul ko noonoo mukk ndax ab jullit la wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju la ilaha illa bu dee ngir yi itam waxoon naa ne ngir yëpp dafa wax ne ñoom ña ko jiite ay kilifaam lañ ñëpp la nangul أئمة في الفقه مالك العلي والشافعي والحنفي والحنبلي بودي طريقة يوم دفع نيوني مم مم سامي سرين نيوم يب مدخ بولن تدينر كن تنيوم لولا دينر مري وحنا نيوم طريقة ينير تاني وات جمي تيال أجمي تطب يال مدخ تنجو بلنة تبولن لين راتن بولن لين دينر فكلهم يدعو المريدين إلى طاعة رب العرش حيثما جلا بالاستقامة فلا تسخر أحد minhum wala tunkir alayhimu abad wax na itam ña ko jiite mashaayixi sayiduna aljilaani wa saadaliyu maahu tijaani te ñett tarixa yooyu rek ñoo am ci kaw suuf daanaka ak almuridiya boo boo ci yokkee tarixab sëriñ bi muy yoonu murid ñeent tarixa yooyu rek laa xam man ci kaw suuf ndax yeneen yi ci des yëpp ay bànqaas lañ ci biiri tarixa xëy na naqsa bandiya la ñeen di ñenn ñi wax waaye boo ko seetantale da gis ne yëpp ay bànqaas lañ ci biir tariqa yi ma yi ñu tudd nii te yooyu yëpp suñu wax na ña ca ne ay ay mbokkam lañ eh, digle na itam ne ñoo ñëpp ñu wormaal lañ na digle itam ñëpp wormaal leen ba ci biir société bi itam yi ci daa xew ci teqale bi nga xam ne moo daa am ci biir société bi ci ay ci kaw ay métier loolu yi sëñ bi daa taxawoon ci xeex ko murit ya ko njëkk a topp dafa génne woon lool ci seen bopp ba métier yi nga xam ne mooy métier yu ndaw yi da ko def loo ñi nga xam ne jàpp nañ ne loolu jomb nañ ko def ñi nga xam ne nag itam dañoo nekkoon ci métier maanaam métier yu ndaw yooyu mu jël leen di leen def lool li nga xam ne moom la borom métier yeneen yi def mooy jàngale alxuraan nag nekk sëriñ dadaa wax itam ne ab julit maanaam waxut ab murit waaye ab jullit la wax ne wala tuhin la tantahir wala tasub wala tu musliman wa min hutub wax ab julit mom bul ko doyadal mukk bul ko gëdd bul ko xas bul ko tital itam te lolu bu la dalé na nga gaaw dal di tuub delu ci yalla te xamne lolu ko def na wax itam ne julit ñi ni ñu muccé ah, eh, ni ñu ci seen ayu loxo nga xane xexu len ak ñom te loolu lu mata sante yalla te wax ne loolu nag ni ngi niñ muccee ci seen ayu loxo lool nañ ni muccee ci seen ayu làmmiñ mooy bu leen wax kenn lu ñaaw lool mi ngi ci majmuwa bi Cheikh Abdoulaat mooloon sëñ bi wax ne wal yaslamil muslimuuna wal muslimaatu min ada alsinatikum kama salimu wa salim na min ada aydikum jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñëpp ni ngeen niñ muccee ci seen ayu loxo yéen nga xam ne xeexu leen ak ñoom defu leen leen leen loo xam ni jëf la ju ju bon wala ju ju ju leen di indi loraange nañ ni mucce fexe leen bañ mucce noonu ci seeni làmmiñ yeneen nga xam ne bu leen leen waxit lu bon daana dénkaan itam wax ne wa usika bi an tarxama jamia alxalqi xatta al usaata waalam bi anna shafaqata ala al aasi afdalu min adduaai alay am na kum dénk ci mag ñi ne ko na nga yërëm mbindeef yëpp nit ñëpp it na nga leen yërëm ba ci ñii mooy yàlla sax na nga leen na nga doxal ak ñoom yërëmaande ndax ndax yërëm kuy mooy yàlla moo gën di ko ñaan yàlla ak di ko wax lu bon waaw jullit ñëpp loolu la ci waxoon daa wax ne yow murid bi moom jullit ñëpp nang leen bëgg na nga leen bëgg ñoom donte dañ laa bañat yow na nga leen bëgg yow xibba jamii al muminina naawiyan xayran lahum takun li xayran xaawiya neen loolu boo ko defee lu baax rek ngay am bu dee borom xam-xam yi moom a seetee moom ci biir doomu aadama yi wax ne nag borom xam yi moom day leen siyaar moom bu dee nit ñu baax ñi noonu day leen siyaar te loo man ci defal leen ko ci lu baax it nga di ko def tey sàkku ci ñoom ñaan di barkeelu ci ñoom it loolu lépp digle na ko te leen liggéeyal itam sa kem kattan loolu leen mën a defal rek ci lu baax nga defal leen ko wazur xiyaar al ulama wa saalihin waxdimhumu lillahi jalla kulla xiin watlub duaahum wa minhumu abad kun kun da tabarrukin fa al ula fa innama ijlaal ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arsi fi qad nuqil bu dee awliyaw yi ñi nga xam ne ay awliyaw lañ nag ñooñu moom Sëñ Tuubaa dafa wax ne bëgg leen moom day farata moom daa war daa war bépp jullit ba tax na murid yi moom kenn war leen cee jiitu xubbu jamiil awliya wajaba wa kullu man aada al xiyaara xujiba da leen daa wax ne waliyu soo ko noonoo kiiraay la suñu borom di doxale sa digganteeg moom te sëñ Tuubaa daana wax ne mbugal mi gën tar mooy barrage dox sa digganteeg sa borom kiiraay dox sa sa sa sa borom wa tardu an baabil ilahi wal hijab أشد من كل غرام وعذاب لولا سنتو بعد وقت ما تح مني دا وقت ورمال عارفون بالله يب نتيا يب معظما لحرما لحرمات عارفين قابل أعذار البرايا كل حين نين دوغل نيب نغانت كو غيس موي داف جيف جو خامني خموكو نغا نكي كات ليلا تي ورا جوبلي فريكو بري مو باخ بودي انبياء وي موم موم سنتو بام دا وخني موم ñooñu moom moom da ngeen a maanaam war a sax ci bëgg leen moom نيوك أولياء ويب ولازم حب جميع الأنبياء والأولياء ومن يطيع ربيا نيغا خامن دوني أي جوليت سا دوغ نانج نا أم دا فم وكن مع الناس جميع بالخلق الحسن حسن يحببك البديع معنا نيغا خامن سا دوني أي جوليت دي أي دوما آدم كاسه نانغا جيفلانتيك نيوم جيكو جو رافيت te boy wax ak ñoom na nga noyal say wax na nga wax ak ñoom wax ji noy jo xamni du fa innahu min chiyamil ak yaasi dadaa wax itam ne teggin yow fexeel ba di ko jëfe rek yow murit bi waaye bul même bu ñetti des buñ ko jëfewutam buñ ko jëfewut itam yow dee ko jëfe rek bal i'tabir min nafsika al adaba wala tutaaliban bihi al asxaaba daana wax itam ne ab julit moom bul ko xas mukk moom te buñ la dee xas yow na nga muñ wasbir ala sabbi wala tujib ahad bul tontu kenn <laughs> kon kooka moom fi mu nekkoon yaakaar na lii moom ku koy doxee war ngaa mën a jëflanteeg ku ne moom te Sëñ Tuubaa yëmul ci loolu dadaa ñaanal jullit yi moom li mu nekkoon yàlla rek a tax maanaam mu daa ko def moo tax léeg am na xasida yoo xam da cay ñaanal jullit ñëpp wajal qulubana ala tawadudi bila tanazuin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaburi wala tabaagudin wala tanafuri xata nasira muslimina xaasiin wa muminina muxlisina saalihin ci mi tam mom sëñ mag bi daa ak mbollem xéti kilifa yi kuréel yi ngay wax yépp ak kilifa yi gox yépp ak kilifa yi xéet yépp danaka ndax xéet wu ne rek dang ko dégg gis nga amna ku ñu wax euh, manam ci histoire am da ngay dégg ñu wax cierno Ibrahim Kan kon ab qadir ak ku melne ne dar muy Ka kon ab qadir Cheikh Mouhamad Sall Xadima Jaxate Kala alxaaji Mouhamad Dramé ak alxaaji Sidi Xunta Sidi Xuye Kunta ak alxaaji Malick Si Sidi alxaaji Malick Si alxaaji Mouhamad Camara biir ñi nga xam ne ñoo ñoo aju ci moom sax di ay taalibeem boo seetloo ci xeet yëpp lañ bàyyi ko boo déggee tur yi tur am na tur yoo xam ne boo ko déggee da ngay xam ñii fan lañ bàyyi ko fan lañ dëkk ci wan xeet lañ bokk ci ñan lañ bokkoon ku mel ne Abdul Abdul Gafour Mbaaxaan Jóob doomi Lat Joor Jóob wala wala Sidi Ahmad Wuldu Ismo wala Cheikh Modou Lam Cheikh Samba Diarra Mbay Cheikh Modou Gallo Sow Cheikh Omar Diop Sëñ Mahmoud Mbegere Cheikh Ibrahim al Baghdadi dëkkoon Irak kon noonu doxalin woowu yëkkaruma ne sëriñ bi dana ko doxal murid yi di def leneen lépp ci murid yi moom danañ jéem a roy ca sëñ ba te loolu lii nag ku ko doxal nag faw nga am jàmm ñëpp bu loolu lépp weesoo nag jëflante bi moom daa rafet seen digg ak ñëpp nag wax dëgg yàlla ndax a jekk kenn ku ne lu baax ngay wax ci sa morom eh, ay hadiye itam dañ koy jokkalante ba léegi sii nii ci diggante këri diine yi ak diine jëpp ba ci eh, masalan ñi nga xam ne ñooy jamaat islamiye yi nga xam ne dañoo xaw a jëm ci salafi itam ñooñu seen jëflante ak waa Tuuba jëflante bu rafet rafet la eh, xëy na nag internet ak yooyu boo ci duggee yee ñuy wax loolu moom jëmmalut kenn moom jëmmalut salafi yi jëmmalut waa Touba waaye jëflante bi moo am solo fi de màggal Touba jamaatu ibadu rahman at mu ñëw eh, indi xaafile boo xam ni ci wàllu ay médecin ay médecin di faj ak yu demee noonu di indi seen ndimbal loolu jëf la ju rafet joo xam ni dañ koy jëflanteeg waa Touba waa Touba itam am na lu ñuy seq ñoom ci ay teraanga yoo xam ni itam loolu nag bokkut ak suñu classe ge gone yi ci mbedd mi nga xam ne moom dañuy waxtaan la waxee na xamuñ ci dara xam nga loolu du bokk moo lu mat a bàyyi xel la dañuy ziyaarante fi ne ñëppay demlante maanaam bu buñ dee jëflanteeg ñi nga xam ne salaf yi nga xam ne ñoom ci wàllu déggi ni moom ñoom lañ gën a sorel loolu moom ñi nga xam ne ñoom lañ gën a jegeel ci tarixa moom ay tarixa nga xam ne ñoom suñ bopp lañ suñ jëmm lañ ñun lañ ñooñu xam nga kon waxee su ko dañuy ziyaaranteeg ñëpp eh, ay tuddantee doom sax gis nga ko ci këri këri diine yi ak ay jokkalante ay qasida kenn ku ne wax ci sa morom qasida gu rafet nit jóge fi itam ñu defal ko marché bu rafet bindante lettre yoo xam ne yu rafet rafet lay doon jëlante sax ay soxna loolu it lépp gis nañ ko gis nañ Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana ci misal rek ma jox la misaal bala nga jàpp ne damay wax ni rek ma jox la misal Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na ci irwa wu nadim bi mu wax ci Sidil Hadji malik da wax ne wa min ajillai shuhadai cheikhuna wa cheikhul muslimina fi Sénégal muhibu cheikhi وقريبه قرابة دين وطين ووطن الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به آمين لولو سين سي محمد لوم جلغان اك نيمو جيخه سي سيني توبا دونون موم بك نيك لاون سي بك نيك سيني بي موي مودون صاحب سر الشيخ سي بك نيك لاون سي سيني بي manam bu fekkon serigne bi ci bom aw doxali nama sidil hadji malik rafetul mom li du ko wax ci mom sunu sëriñ seyxuna la wax wa ñëpp ci senegal di ku bëgg sëñ Tuubaa di mbokkam mbokkum diineem mbokkum eh, ci askan mbokkum mbokkum ci réew mi alhaaji Malick Si ne radiallahu taala anhu taala anhu wa nafaana bihi noonu la ku mel ne sëñ Basiru ba ba tudd alhaaji Malick Si moom la al aalimul jalil wa cheikhul fahim alhaaji Malick Si mujaddidu tijaniya fi hada al wa imamuha sunniyul waria ahadu aimmatil muslimina wa jahabitatu salihina noonu la ko sëñ Bachir waxee wax ne borom xam-xam bu mag bu rëy daraja alxaaji Malick Sy moo yeesal tijaaniya ci ci gox biini di ilimaan joo xam ne ku teg mbiram ci sunna la te sàmm lool bokk ci kilifa kilifay diine yi di waaju baax ci gaa yu baax yu mag mi ngoog kon loolu ak yéen mel mënoon naa ci indi yeneen yu bare bare bare bare gis nañ suñ mag bi ci boom <clears throat> suñ mag bi ci boom yónnee na tafsirul ni mu yónnee ko alhaaji Abdullahi Ñas ca Kawlax alhaaji Abdullahi Ñas al Kawlaxi di way juru cheikh al islam eh, cheikh Ibrahim Ñas eh, cheikh Ibrahim Ñas digganteem ak waa kër sëñ waa kër waa kër sëñ nañ cee wax alaaji Abdoulaye Niass itam mu mag ma gis nañ al mufassir al alim, gis nañ tafsiru jalaleen boobu ba nga xam ne moom ba nga xamee ne sëriñ bi yónnee na ko ko jaare ko ci ku ñu wax sëñ Masamba Seen ca eh, dëkk bu ñu wax dànq dànq dànq seen yaakaar naa la waaye lu mën a xew da caa bég lool ba digal kenn ci njabootam muy eh, doomam ngir mu def ci ay bayit yoo xam ni da ciy tagg sëriñ bi dinaa ci ñëw léegi bu dee Sidi Xaaji Malik moom gis nañ moom it mu yónnee sëriñ bi hadiya eh, hadiyatun mujibu ijtilaabu mahabbatin ni ayyuhal xubaab boobu sëriñ bi sëñ Maodo si sëñ Maodo Touré bokk rahmatul radiallahu anhu wa rahimahu rahmatan wasia mas na maa nett li ne boobu sëñ bi dafa yónnee doon wutlu al ladunniya bu xastalaani nee na Seydi Malik wax ko ne ko kat téere boobu yi amu fi waaye muxtasara mi ngi fi ci la ko ko jox addiya nag ci la ci la defal nag bayit yi nag sëñ bi ko itam mi wax Cheikh Fatma ba ci jamonoom moog sëñ Abdou Aziz Si joxalante bu rafet am na ci seen diggante ba léegi ñu koy waxtaane ba ci sëñ Mbàkke soxna Ndoo itam gis sëñ bi ci wam jug na seeti si El malik Malick si ca njaar ne loolu sëñ Basiru wax na ko sëñ Basiru itam nee na daana seeti moom ci moom wax na ci minal baaxadi ne daana seeti El Hadj Malick si nee na fekk na ko ndax fekk ko tiwaawoon mi ngoog Cheikh Mouhamadou Khalifa bu Cheikh ab bu El Hadj Abdoulaye Niass ca Kaolack moom it gis nañ waajuram yebal na ko ci sëriñ bi bi nga xamee ne sëñ Mamour Anta Sali jóge na fi moom alaaji moom sëriñ bu mag bu baax boobu itam Cheikh Mouhamadul Khalifa moom it moo def bayit yooyu yi ma wax moo ko def ci ci sëriñ bi waajuram digal ko ko sëñ Abdou Aziz Dabakh moom moom moom diggam ak tubaabam ku ne xam na ko fi nga fi ne boo demoon fa mel ne suñ mbokki laayeen yi ñoom daanaka kilifa yi réew mi ñi ci bari da ngay fekk seeni trono nek ci bir kër ga ci kenn ci doomi eh, cheikh abdullahi thiawlaay mu wax ne maam jaara so ma nga ci seen kër cheikh abdullahat abdullahat ma nga ci kër ga moustapha bachiru ma nga fa seigne fallu ma nga fa cheikh mbacke gene faat ma nga fa <laughs> ñun ñëpp mu tudd den doom fi ci darul moxti ne sun mbokk yi ñu nekkal di wa fas Touré gis nañ tam seigne hadi Touré ci wam tudde na soxna Xawa Balla dom mi nga xamne moy wajiru Cheikh mohammed Awa fi fii ci njabot gi tam amna ñu ci tuddee waa kër hadi yoy yi sëñ hadi ci mom ak ak wa kër ga man dañuy jokkalante ñam ci lool budé dee yi nga xamne mom lañ def ci seen digënté ñam ci way mom xasida yi yu ni rafété mat manes na ci bind ab téere itam Cheikh al Khalifa xasidaam gu rafet gogi yi azka salamin ka ta'mis shahdi birrahi yanubu anna wisal arrahi birrahi أزكى سلام كري المسك نفحته معترا بنواحي الشيخ فواحي شيخ تقي نقي عيلم علم فما ثنائي بمطريه وأمداحي أتحفتنا بكتاب لا نظير له أروى غليل صدانا بعد لواح لا زلت ترأب ما أثأت وما فتقت أيدي الوشاة بإرآب وإصلاح بنا قصدك xasida قصدك رفت رفت gu طيب. بسنيتم rafet بسو mu sëñ Mbàkke bu sow moom it def na xasida ci tagg alhaji malik si uhdi bahiya salaamin qad tusaayiruhu taxiyatun mithla rawdin zaanahu zaharu li majidin fadilin min mahcharin gurarin bihim tamaddaxa ahlul garbi waftaxaru bana xasida ga jeexe xasida gu gudd moom it te am solo lool bañ mu àggalee Sidi Hadji Malick da koo tontu da koo tontu wax atat qurrata aynin wa najma saadatin li tajdidi aqdin kaada kaana xayra uqudi fa bashirhuma ya rabbi xayra busharatin ladal fazain ala li yowmi shuhudi doomu sëñ Mbàkke Buso boobu moo fa demoon mi ngoog ànd ak keneen moom yaakaar naa kenn ci mbokk yi mu ko teewluwut bu dee nag euh, sunu mbokk yi ca gànnaar moom Babul Cheikh Sidiya moom gis nañ diwaan diwaan la daanaka moom moom li mu way ci sëñ bi lu bare bari la Cheikh Saadu Abihi Cheikh Saad bu nga xam ne moom la xaadir yëpp dellu fii ci réew mi moom it ca gaa ñu baax ñu mag ña la bokkoon ci kilifay xaadir yi la bokk te gis nañ moom li mu wax ci sëñ bi itam maadinuhu ajladuhu min minhu minhu nasara fa asbaha fi tilkal buxuuri nudara euh, te sëñ bi tontu ko itam moom tontu boo xam ni bu rafet la jox ko cëram wax ci wax lu rëy ci moom zunnuun zunnuun lii nga xam ne moom ci kilifa kilifay xadir la fii ci fii ci réew mi moom gis nañ moom moo ko waajuram eh, Cheikh Mouhamadul Fouti li nga xam ne moom lañ wax ci sëriñ bi ay bayit yoo xam ne murid yi sax waxuñu ko ci sëñ bi zunnuun yaakaar naa moo wax ne eh, yaa xillu kam zaara haada al bayta min malikin wa min wazirin wa min jinnin wa min malaki ngoog wax yoo xam ni gis nañ ku mel ne sëñ Maodo Touré doomi sëñ Xaadi Touré mi nekkoon xalifa ba eh, doon ku baax koo xam ni moom réew mépp la amalul jokko eh, man mii daanaa fa dem am ak moom jokkoo lool mu fonk mu ngir xëy na fii ma jóge ak lu bare bare bari eh, ku baax a ngi noonu jëmm joo xam ni moom moom moom moom yombut a gisati ci kaw suuf Eh, waaye gis nañ moom ab ci tariqa tijaan la ne waa kër Seydi El Hadji Malick Sy la bokk ndax doom Sëñ Haadi Touré te teewul gis nañ mu def ci Sëñ Fallu xasida goo xam ni jëpp ma ne geneen mel na ni moom wax na ne ataytu ila tuuba fa alfaytu sayidan yudaahi rasulallahi bayna sahabati tafarrastu nuuran min malaamixi wajihi wa yarnu li arshillahi fi kulli saati سلالة الشيخ الخادم المرشد الورى لأقوم نهج موصل للسعادة خليفة الشيخ الخادم الفاضل انتمى لآبائه الغر العريق السيادة وقد ورث السر سر الرباني وقد ورث السر الرباني عن أبيه خادم خير الخلق حق الوراثة ba فمك ca wax na ci lu bare bare wax na wax na shifahul wara fi kulli naadin turaddidu فضائي فضائلك العظمى لدى كل ساعة فشرواك في أرجاء الدنيا دنيا فلم يكن من الخلق من داناك في أي قارة فبيدا وسودانا فبيدا فبيضا وسودا نكسوا الرأس خادعين قالوا فأنت المستحق الزعامة <laughs> ba ag ci wax ne an lakum ya ahla tuba sakantum marakiz qutbaniyatin wa wilayati xasida gu yéemu goo xam ni eh, moom xasida gu ko dak mom yombatu to gis budé nak ku fi jóge ñu defal la marché mom loolu bari na lool sëñ bu so ci bopam at mi fi sil haji malik Malick ak señ abdou cheikh Abdullahi Ñas bu Kawlax def na ca bobé way yo xamni dafa xamne diine ji ci bopam mo am jam-jam tay manam diine ci bopam mo am manam bu doon ab jant jant jant jant ba dafa dafa fay te lolu booba bim koy wax euh yaakaar yakana sëñ baa fi sax nak wala waye lu meuna a xew moom sëñ Mbàkke Buso mom mo def bay di wax ne yaa salmatan fi dinina al islami min qalai qarnay hamatil a'lami السيدين العالمين الناسكين المسلكين لحضرة العلام شمس وشمس عام الشمس غابتا فبكى الورى لتكاثف الأظلام آه، كن لولي بفكر نفهم يرو أكاكو ير مو سنجي باكي بسو مو سنجي بمكبي fekkon kiko yar jëmbatul ci moom bëgg ñeneen ak mën a jëflante keneen wax yi moom baa du ko wax te wax yi rëy na lool nag wax dëgg yàlla waa malikan li sunnati algarrai walqurba waliduafai wal aytaami maa laysu xiilin misla abdillahi fi yowmi alxurubi albaasiri almiqdaami <laughs> mi nga kon daal gis nañ sëñ Abdul Asis si mi fi mujjoon moom defal na marsiya sëñ Abdulaat wax ca wax yu am solo yu rëy yu daw yaram eh, damay bañ mu gën a gudd nekk noonu itam gis nañ eh, Sëñ Abdou Aziz si ba tey defal na mm, maanaam marsiya Cheikh Abdul Qadir ba tey wax ci moom wax ju rëy ju am solo nekk nekk noonu itam gis nañ Oustaz Cheikh Tidiane Gueye bokk ci wàkk Sëñ Abbas na doonoon ku baax eh, ku mën a défendre tasawuf moom gis nañ mu marsiyal Cheikh Abdou Lahad waaye itam eh, marsiyal na Cheikh Mouhamadou Mourtada bi mu fi jógee wax fa wax ci itam wax yu am solo te daw yaram lool te am solo lool nag te loolu lépp itam ku xam ñii may wax ni ku mel ne Oustaz Cheikh Tidiane Gueye moom ku ko xam xam ne moom moom moom moom moom moom moom maanaam jëflante bu rafet rek moo mën a tax sa diggante ak moom maa taxawaay yi am defal na marché yi itam Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké fii ci Daarul Muxti bi mu fi jógee moo tax ginnaaw bi nga xamee ne sëñ Maodo jóge na fi ndax Cheikh Abdoul Khoudous biko ko oustaz Cheikh Tidiane ngay defal marché dafa wax ne boobu sëñ Maodo moo ko ko digal moo tax sëñ Maodo moom yi sëñ Maodo Touré bim mu fi jógee gis nañ murid yu bari defal nañ koy ay marché tàmbale sëñ Cheikh Waalo mi nga xam ne surtout sëñ Saliou la ak eh, do Mustafa Moustapha eh, wax na ca xasida gudd gu am solo sëñ xabbaan itam sëñ Murtada defal na ko marché moom sëñ Maodo ak ñeneen ak ñeneen bu dee bindante ay lettre moom loolu it na lool ci seen diggante ba tey kii bu dee jëlantey soxna itam am na ci lool boo demoon fi ne fële ca euh, mbokk suñu mbokk cadre yi nga xam ne ñoo ñuy sant kunta maam bu kunta waa kër maam bu kunta njaasaan ñoom moom ak ñoom ak mbokk gu gu gu gu wér sax nag nun fii ci Darou Mouhty ak ñoom dañu am ak mbokk euh, te boo fa demee da nga koy fekk ñoo xam ni euh, wak mana ñenn ci waa wak sëñ Modou Moustapha moom ki fa mujjoon nekk xalifa rek da jëloon daa yoroon kenn ci njabootu sëñ Modou mustafa ba ay sëtam nek wa mana ben lañ <laughs> li wak bëgg wax kon loolu mooy gàttal bi kon dëgg la bo gisee kuy wax wax ju ñaaw ne ca kookee rek la bàyyi ko waaye ci sëriñ bi bul ne itam ci murid yi la bàyyi ko ndax ñëpp ci murid yi itam ñi ngi jéem a ak li leen sëñ bi digal ak li sëñ bi daa jëflante ak li sëñ bi daa doxal tijaan itam wala qadir wala salafi itam loolu it laa jàpp ci ñoom dama jàpp ne boo ca déggee ku wax wax ju ñaaw jàppal ne kooka itam ci kookee rek la bàyyi ko doo ko du ma ko askan mukk bu dee man bokk du ma ko askan mukk waa kuréel ba loolu nag sequt ak dara xëy na léeg-léeg yenn mbiri xam-xam yoo xam ne dinañ ci waxtaan eh, wax lañ ca taxawe ak ñeneen ña dañ ca taxawe rawatina suñu diggante suñu mbokki salafe yi ñu leen di jégalu baax di ñaan yàlla mu boole nu yërëm noonu ñëpp ndax kenn ku ne si yitte mooy lu jagal diine rek nag wasalaamaaleykum wallahu taala alam